waay ay bu yang ba dugg ci kër gu ñun wër koor ñuy rek man bañ ñu dugg ci kër bu koor gi ñëw kër ga kay ñoo bu ci kër gu ah, taba waaw ma suuf na nga def jëm ah, yow def def amul da da da amul xel dara ku lay weere koor ma ngi jot yaa ngi dégg gisuma nga joxe nga joxe dara ci kër gi. yow koñ bi nga nekk nii ni mu sore loo fi wut. yow doomi nday Diop yow. yow ah dinaa ñëw sa nday ah? ah. waaw comme ah, waaw ma doomi nday. ah waaw waaw yow li nga wax sa jarbaat bi dëgg la. waaw ah. nay joxe. da joxe ah day joxe waay waaw kay nag waa comme que yow yow yaay kone. yow yaay kone tout. maanaam koñ bi yow foo jàpp ne yow tey jii buñ fa duggoon tey. bu ñu fa duggoon tey jii dana am nu yóbbu ci kër ga kon Baye Ibra Diop kan kon Baye Ibra Diop démb rek room naa ko mu joxe sukkur koor fu mu ga la kër ba gis ko kër gu zone ba waaw gis nga ko waaw kër ga buntu Baye Ibra Diop waaw waaw waaw foofu ngay dem foofu moom doo demee moom lépp jàmm moom su ko lépp lay joxe lépp koor ak lépp moo da ngaa xonq de say waaye wax waaw gis nga ko ah waaw waaw foofu la waaw waaw waaw kay noonu la noonu la baa yow it jawit ko waaw Mbaye Ibra waaw yow it yow it foo mën a débrouiller. waaw na nga ko débrouiller indi kër ga. baax na waaw xam nga. waaw waaw waaw moom moom moom nit. Ah, waaw Awa ah, baax na. waaw waaw dégg naa loolu. Awa Diop Babou Kër Diakhoumpa. Ah. ah lépp ñëw. waaw mooy romb jaam ñi maam Samba nii lay demee fuñ ko fekk mhm. war nañ koo tagg waaw teral ko mhm. tatagal ko sargal waaw ndax dégg nañ dégg nañ sa teraanga si koñ bi mhm. ki nga xam ne si mooy sama jarbaat mu ñëw na ay teraanga ngay def si koñ bi waxuma ak yow kan lay wax ak yow <laughs> ah, waaw wax ñu sa yaay wax ñu sa baay moo tax ñu ñëw fii wallaay wallaay màggat mooy sa yaay màggat Babacar Dia Kumpa moy sa baay. ak yu fële dëkk ba. ah, ah Maria. ba taxna na. Ah. teraanga yi ngay def ci dekk bi. Mm. suka si nga joxe ci wéru koor gi. ceeb bi ya ngi dégg. yu bax bax yépp rek moo tax ñu ñëw fi lo taxon ñu ñëw nga bëgg. Mm-hmm. nga jox nu ci. Mm-hmm. Mm, xaaliss bi ak yu mel ah, mm, ndax té wax dëgg yàlla. Mm-hmm. mpaliw na actuellement rek. ñu ngi ci diggu wéru koor gi. yalwaan ba. dafa xawut a waaw. ba tax na daal. waaw loo ñu mën a gën a jàppale rek. jàpp ci bu baax rek. waaw waaw. waaw. kanam gi sax rusu woon ko ko ñaaw la rek. ah ah noonu la noonu la. maanaam ay xaalis da ngay la. maanaam maanaam bu amee xaalis. Mm, mm, bakkat ba day misaal la misaal la. Ah, waaw dëgg misaal la ah waaye ñun moom xanaa dañoo dañoo jéppi. Ah, nit ki kan nga daa ñëw di Samba Mbayaan wax ay ay Samba Mbayaan ba kii moom moom mu ne mu ne mu ne mu ne ceele dafay dafay xaaj ba xanaa ni dugg see da koo neexut ah, xanaa ni dugg see ah, dafa xaw a waaw <laughs> ah dama ne ku baax ನಗಯೇವೋ